auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim xabli safinatan bi kullil janna min daaratil minnan yaasal minna ataaniyal markabu fi daari minnan inda tasin tadxulani daari minnan ginnaaw bi nu sant yàlla sunu borom jullit Seydina Muhammad ñoo ngi sant Serigne Touba Xaadim Rasool di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi lool te ànd ak wér naa mu naalal lislaam naalal ko Serigne Touba mu àggale ko ak fii nag tey ci jumaay Touba fekk si kuréel gi nga xam ne ñooy kuréelu Muxaddamatul Xidma gi nga xam ne ñoo yor mboolem liggéey bi jëm ci jumaa ji ñu ñëw fi nag ci ndigalu soxna Bali Muntaxa bintu Serigne Sooy Mbàkke Xaadim Rasool mu boole noog doomam mi nga xam ni mooy Serigne Abdoul Ahad Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad di doomam di jëwriñam di xaritam di léppam. Serigne Jili Mbàkke pëf di ak Serigne Morlo. ak seen Xaadim Mbuub ngir ñëw fekk si sëriñ Abdul Ahad Bousso ak ñii nga xam ne ñoom la sekkal liggéey bi di kuréelu Muxaddamatul Xidma muy kuréel ko soxna Baali Fonk koo xam liggéey sëñ bu muy def rek ñoom la ciy jiital sëriñ Abdul Ahad wax ni nag soxna Bali wax na ni seen digganteek moom dafa yàgg boobaak tey lépp lu ngeen nekk boole ngeen ko yéen it lépp lu mu nekk ngeen ànd ci ak moom tey jii nag liggéey bi dafa soppiku ndax at yi yëpp mu fi daan ñëw ci weeru koor ak taxawaay yi nga xam daan na ko am ci kuréel gii lépp da ko daan def ci turu soxna Bali taxaa waaye nag sëñ yokku liggéey bi nag ci barke soxna jaara ba noo àgg nag ci am fondation Soxna Bally te tey jii nag ñu ñëw fi nag ci turu fondation Soxna Bally Mountakha ànd ak Serigne Abdoul Ahad Mbacké mii moom Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Cheikh Abdoul Ahad fas yéene nag mboolem fu daara alquran nekk ci dëkk ak fépp fu ñuy tudd ab daaray kaamil rek soxna si bëgg na ab jëfam ak liggéeyam ak ndimbalam yegg ca foofa ndax fondation bi la doon ko tax a jóg taxawu néew di doole yi taxawu daara yi taxawu jumaa yi ak jàkke yi waaye nag képp kuy liggéeyal Sëñ Tuubaa ci lislaam di ko def ci daaray kaamil yi mbaa ci jumaa wala ci jàkka fi nga ko war a njëkkee nag mooy jumaa ji ndax lu nu amit fii ñu ko gënal ki nu amul lu dul moom fii la nekk te fii la ñaanoon yàlla dëkk fi ba faw wajxal ilaahi maskani tuuba abat kon yéen ñi fi ne di nu amee na leen njukkal war na leen rendre hommage war na leen a sant war na leen a gërëm moo tax soxna Bally moom foofu rek la teg bëtam liggéey bu muy liggéeyal sëñ Tuubaa kuréelu Muxaddamatul Xidma ñoom la ciy jiital saa su ne ni nga xam noonu ngeen ko wagaree sunu barab bi nga xam ni sëñ Tuubaa ñaanoon na yàlla ne ko na nga ko def muy seetu Kaaba ga ca Màkka waaye na ko def muy seetu a Munawara te loolu nag buñ ko ñaan gi sëñ Tuubaa ñaanoon nag yéen bokk ngeen ci ñu ko jàppale ci ñaan googu ba mu nangu kon yaa leen sëñ bi taxaw te gën a loolu moo doonoon ay jëfam doon ay taxawaayam mu yebal sëñ si Abdoul Ahad ngir mu ñëw indi jëfam joo xam ni da koy barkeel fondation bi da koy barkeeloo ci liggéey bi nga xam ni. waaw mu ne ren nag da koo def ab chèque boo xam ni mu ngi toll ci cinq cent mille francs soxna si wax ni moo ko barkeeloo ci liggéey bi lii nag app tàmbali la waaye yeneen yaa ngi ñëw yéen xam ngeen moom xam na kon nag yàlla nañ ko teew at bari na ci barkeb sëñ Touba te yàlla yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi sëñ Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi lool te ko. te kàttanal ko ba li mu yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci toolu lislaam bi mu def ko te ànd koog noonu di leen nuyu ci turu sëriñ Afiya nga xam ne mu ji daayira Moukhaddamatoul Khidma ak ci kilifteefu sëriñ Abdou Lahad bu sa Muntalib mi secrétaire général ak sëriñ Abdoulaye Abdoulaye Diop mi adjoint sëriñ Fallou Mbacke mi jiite organisation bi. fekke ak seen jëmm yi muy jëf ju rafet ju yàgg jóge ci soxna Baali Muntaxa ñëw fii ci jumaay Tuubaa ci daayira Muxaddamatul Xidma ngir ànd ko ñun ñu ngi leen di nuyu di nuyu soxna si di teg ci nuyoo bi sëriñ Abdoul Ahad moom si la suñu diggante ci diggante bu rafet la kon nag bu soxna si tànnoon koo xam ne bu ñëwee dañ ñaan mooy kan sax dana neex ci noonu waaye ñim tànn ñëpp ñeebal fi tamit suñuy nit leen suñuy wëlër lañ suñuy xarit lañ kon loolu ñu ngi ci santaat yàlla bu baax ndax ñiñ tànn ñoo ñoom ñooy liggéey bi bokk di dox lu jëmale sagub dëkk bi lu rafet ñu di ci dox kon na yéen ñim tànn naan ngeen ñëw fii sant nañ ci bu baax a baax di leen jot daayira Muxaddamtul ma daal ñu ngi bàyyi xel soxna Bali bu baax te bàyyi gi ñu ko bàyyi xel nag euh, benn ñaari ñaari anam la benn bi juddoom la waaye benn bi jikkoom la juddu bi ñi mu ko yemleel bari na jikko ji nag moo yokk lu baree bari ba tax lépp lu ñuy def ñu bàyyi ko ci xel ndax dafa yàgg bàyyi xel barab bi yàgg xel bàyyi xel daayira Moukhaddamatoul Khidma waxtu nekk seen njukkal bu baax ci nëgëri daaw ci Covid bi ci eh, ñu amoon ci liggéey bu rëy boo xam ne ku ne xam ne li ci daayira Moukhaddamatoul Khidma jànkonteel ndax amoon na ay guddi yoo xam ne daanaka suñ guddeeg suñ bëccëg lépp ci waye ndigalul sëriñ bi ñu dénk ci barab bi ba du laal suuf ci lañ nekkoon waaye soxna Bali bokkoon na ci ñi ñu jàppale woon ci liggéey boobu kon nag ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm ñu ngi ñaanal fondation bii mu taxawal tamit ngir yaatal la liggéeyam ñu ngi ñaanal yàlla suñu borom dëbb ci kàttan def ci xéewal ba fa fa tax mu bëgg mu egg fa mu mën faa egg ni mu ko bëggee ci bàkki Seex Xaadim ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm bu baax bu ngeen demee ngeen santal ñu ko gërëmal ñu ko te xam ne xol bu sedd mënta weesu xol bu sedd jaajëf ci mënta weesu jaajëf waaye ku jëf dookaam moom nag jëf na tey te jëfoon na démb ñi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel di xamal ne jàpp na fu mu nekk ñu ngi fa nekk waaye fu mu ñu ngi koy ñaanal musal leen ci ndog yi ubbi leen xéwal yi ba li ngeen bëgg liggéeyal Serigne tubaa ngeen ànd ko moom te yéen ñi nekk ci moom di ko jàppale ci wet goo xam ne moom mënu faa féete yéen yàlla dëbbu leen kàttan ba tax ngeen mën a yaatal liggéey boobu ndax am na loo xam ne am na ñoo xam ne ñoo ko man kon nag bu defee lu mel nii yéen ñi taxaw ci wetam di ko ca jàppale ba tax lam ci bëgg mu ko ci amee noonu ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di. laata taala wa